ami Collé la puissance maan ngi lay bëggee di siyaar Xalil. di jox bu baax a baax ñu bokk ko rek. tey ñu ngi ci journée Moustapha. mag. la doon king nga xam ne bi nga xam lamb bi mu diggoon tey ba diggoon dañ koo woo ne ko kaay boo ñëwul du baax muy Gaston Xaali Mbeng mu ñëw ci journée bu mag le 5 balaa maa ñëw ci kii journée bu mag le 5 nga xam ne combat bi daa jaay boppam mu diggante Reug Reug ak Sa Thiès. waaw combat bu neex la wax dëgg yàlla Ami Collé combat boobu kuy promoteur rek bëggoon nga koo tëgg Reug Reug Sa parce que nekk na làmb ji nga xam ne du neex a remplacer waat ci làmb parce que làmb gladiateur daa gëj ci làmb làmb jànq daa gëj ci làmb yaakaar naa ne nag bu ñëwee la 5 mars diggante Reug Reug ak Sa Thiès bi teelu ta dagg bi rek laa yërëm mais nag ñaari mbëri ñu ngi ci état de forme bu doy waar muy Reug Reug di Sa Thiès Reug Reug na li nga xamante bi nii moo dal xelam yokk na ba toll nu ko neex bu ko Bombardier ëppet mais macha allah lépp doole la Sa Thiès wàññi na poids am ba nekk athlète ba am rapidité ak mu nekk combat bu neex la 5 mars incha allah. mais Modou Anta keroog dama laa déggoon micro bi combat bi taxawee ma ne la rëg-rëg bëre bi Sa Thiès di bëre est-ce que arrangé na. waaw xam nga bëre moom mooy li may wax sa jour alkaati du bàyyi dóore nit ki nga xamante bi nii lii la tàmm chaque jour loolu lay def rëg jël na poids dama xamul ndax poids bi. dina am rapidité bu ko may Sa bu dalee ci kawam bu ko parax paraxee du mën a nekk walla déet Sa Thiès wàññi na poids boo xamante bi ni xaarul benn bennal dafa bëgg a ñëw patam patamee Reug Reug def ko lim koy def ci kaw loolu nag Reug ak ay coach am ñoo ci entraîné ñu wàcc xam ne am nañ client sérieusement comme ni ko Sa Thiès amee. damay gis Reug Reug buy bëre am ñaay joxal jóob lay bëre day bëre benn benn di def tànkam jàpp la bu la jàppee nag làmb ji jeex. mais damaa gis arbitre bu ne prit Sa Thiès day dal ci sa kaw est que rëg-rëg bëre bu yéex boobu nekk du andi ko handicapé ci la en tout cas leen moom xam naa ko rëg-rëg moom bëgg naa benn bennal ba jàpp xale bi nga xam ne mooy Sa Thiès bu ko defee imposer ko force pour bëreeg moom Sa Thiès nag dafa bëgg a def am njaay joxal joob mais du ca yàgg parax paraxee rëg-rëg jàpp ko ne mu bëree nag nees noonu la bëgg a bëreeg rëg parce que boo ko gisee li mu entraîné entraîné wul jàpp ngeen bu jëmale suba ari daa bëgg a mu tàkk ci kawam bu tàkkee ci kawam lan la fay fekk bu dee fekk na fa doole bu wër keng bu ko rëg jàppee du baax ci moom mais bu tàkkee ci kawam am li mu bëgg ba sol rëg man na ko andi jafejafe jafe wër ko ndoom hmm. ngeen dem ci beneen journée mu nekk Tambarane sa bi nag mu nekk combat bi ñëpp doon xaar boo mooy combat jànq bi Modou dañ koo wax mu ne combat jànq la soxla ki nga xam ne moo daan Balla Gaye Balla Gaye tamit daan ki nga xam ne mooy mooy Modou loo ñu boole Ami Collé laa mu jooju neex na de waaye balaa boobu nag le 18 mars suñu mbër bi mooy bëre muy Modou Anta ma lay woo yéen ñëpp journaliste yëpp ñëw leen sot parce que Modou Anta lañ am Mamadi Diouf numéro 2 lañ am maali Thiandoum lañ am ñooñu ñun lañ dee suñ bopp faaw ñu jàpp ci di woo ñu koy jàppale ñëpp moo xam ci ñaan la ak ci côté billet yeeg yëpp ñu ngi leen di woo. Kandji production maa ngi koy woo bu baax bëgg naa combat bi mu ñëw jënd ñaari bolok Fallou Fall borom Touba maa ngi koy woo doomu ndeyu Sa Thiès mu ñëw jàpp ci ku ci mel ni mu Moustapha Kébé aussi tamit borom Tiwaawoon maa ngi koy siyaat di ko woo mu jàpp ci combat bi bu baax a baax waaye Ami Collé de toute façon di nga gis combat bu neex ci diggante Modou ak Boy Niang lii maa la ko wax